jàll ngeen am waaw asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokk Sénégal yëpp euh, bi ñu duggee ci conseil bi donc pour euh, saytu conseil bi ak ñun saytu biñ ko jox ci fiche de parrainage gis na ni validé nañ daal ba mu manqué ñu ba mu manqué ñu loo xamante ni ay 4000 lay toll 4000 parrainage yoo xamante ni manqué na li ñu gën a sonal mooy euh, conseil bi dafa ni moom daal jot na lu mat fukki junni ak ñaari parrain je pense que 12 000 traduire naa ko. Mhm. yoo xamante ni dañ koo am mais moom du seetee ci fichier électoral bi ñooñu du leen gis te du la wax lan moo tax du la wax ndax ñoom dañoo bi ñuy binduwaat bi ñuy def euh, commission révision des listes est-ce que ñii ñenn ñi dañoo faatu ndax gis ngeen ni candidat yu bëri benn problème bi lañ am mooy ay 12000 15000 20000 ñun yàllaa ñu dimbale xëy na suñu parrainage baax ba mu bëri ñuy doublon yooyu mais kon normalement du ñu mën a yegsi fii ñu yegsi léegi nag ñooñu foog ñoom ñu jéem a xool conseil bi ginnaaw dalul ku ndaw dalul ku mag seetlu nañ ñu bëree bëri la dal ñoom ñu jéem a xool ak daaf lan mooy problème ay nit ñoo xam ne am nañ carte d'identité ñu bind ci inscrit électeur lañ mais boo ko dugalee tey jii ci fichier bi fichier bi ni la xamu te ñun yëguñu ñu bëree bëri ci ñoom te loolu day poser problème ci élection yi ndax ñii ñuy wax fichier introuvable ku nekk ci ñoom ngee mm-hmm. su demee di voté ji dañ naan ko fii du sa bureau de vote parce que génn nañ la ci ci bi te yëgoo ko au delà de de u parrainage conseil constitutionnel dafa am intérêt lijjanteeg daaf ce nombre là boo xamante ni ay personnes nee nañ xamuñu leen gisuñu leen nekk ñu ci fichier bi te koo laal ci ñoom dina ne la voté woon na ci législative léegi nag ñu ngi euh, remercier en tout cas suñu équipe yeeg la population qui nous ñu soutenu ñun xam ngeen ni ñun ñoo mujjee ñëw ci mbir mi ñun moom daanaka 28 jours la ñu am pour ñëw ñi si des moom am nañ daanaka plus de 60 jours mais loolu du problème bi donc du excuse bi mais ñu ngi ciy liggéey incha allah ñu ngi wax ñëpp ni leen jarul jaaxle ndax li ñu war a changé bariwul bariwul dinañ ci def lu ñu mën incha allah léegi nag li ci des conseil bi moo war a saisir peut-être la DAF ñoom ñaar ñu seet après fii ak élection yi problème boobu lan moo ko indi donc ñu ngi leen di remercier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 xamante ne rek war na ko càmbaraat ndax moom ci jëmmi boppam nag dafa daal di valider juróom-ñeenti région kii di amatu sekk moom tamit nag daal nay valider lu toll ci mille vingt neuf parrain jamono ji nag ñu wax ak yéen am na nag lu toll ci quarante huit mille sept cent quatre vingt trois yoo xam ne da ko war a defar bu dekkee kii di dossier candidat bi di Abdou Khadre Sall moom dossier incomplet la daal di am ndax nag amatul benn produit boo ñëwal attestation bi nga xamante ne rek moom la nar am foofa ca caisse de dépôt et de moo tax nag parrainage am a jàllul waaye nag contrôlé wuñ ko du ñàkk dinañ ci xusandiwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche notification ngir amaat yeneen